wane ne xéeféerloo gi ñu xéeféerloo imaamu Busayri teguñ ko fenn ñoom waxa bi ndax Busayri moom defe naa ne moom moo leen gën a sonal soo ne Busayri rek ñu ne xéeféer la kaafir xéeféer la lu tax mu nekk xéeféer ñu ne moo wax ne yaa akramal xalqim maa man aluudu bihi siwaaka inda xululi alxaadisi alamimi ndeysaan beytu bu rafet boobu nga xam ne ku ko dégg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa yaram dafa war a daw nga gërëm ku ko wax waaye ñoom suñ ko déggee ci imam Busiri dañ naan xéeféer la te boo xéeféer lay waxee sa morom bu dul xéeféer rek yow ngay xéeféer yal nañ ci yàlla musal kufru mooy natt bi gën a mag ci natt yi yu kafiroona dañuy xéeféerloo al Busiri imaamu Busiri bi tawassul yi ci jotliku gi muy jotliku بالنبي يونت بي صلى الله عليه وسلم بو سي جوت ليكو سي يونت بي موتاخ ني نهيفر لا من من اختاري بوكنا سي لي غنا دانسي و اغرب انحرافات لا يفقهون اك يي غنا تومرانك سي نجانغ نيغا خامي دون ديغ سين جانغ بوكنا لا سي غنا دانسي غن سي تومرانك تكفيرهم xéeféerloo gi ñu xéeféerloo li muddaaxi rasulillahi ñeel ñey tagg yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama salla yàlla na doon xéewal allahu yàlla alayhi si moom wa alihi ak ñooñoom wa sallama doon leen musal ñuy xéeféerloo ñooy tagg yonent bi ñooy wahabi yi ñoom la tuddee laa yafqahuuna dégguñ bokk na li gën a tumuranke seen jéng googu ñu ak li ci gën a dansé mooy xéeféerloo gi ñu xéeféerloo ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al mutawasilin ñooy jottaliku bi jaahi si darajaam al azim bi aji màgg ñi nga xam ne buñ tàggee yonent bi dañuy jottaliku ci darajaa yonent bi sallallahu alayhi tax hadis yi ñëw di wax ci jottaliku si darajaa yonent bi yëpp dañ koy lottaloo lu mooy yiñ ci mënul lottaloo ñu jéem koo taawil taawil bu bon nu mu leen te baytu baytu Buseyri bi moom jéewuñ koo taawil te bu ab saxaaba waxee lu mel ni lu Buseyri waxoo lu ko gën a garaaw ñu ne <laughs> ñu ne nañ ko taawil te bu Buseyri waxee ñu ne nañ ko defee wér xam nga loolu mooy parparlo raaji na ñëwee yaakaar shafaatu rambam yonent bi ñi nga xam ne dañoo yaakaar yowmal xiyaamat yonent bi rambu leen ba di ko ñaan yonent bi ñooñu dañ leen xeewéerlo al kubra rambu gu mag googu fi yowmi yuqaalu lahu ci bis bi nga xam ne dañuy wax yonent bi fi xadisin ci xadis bu gudd ramm gu mag googu te mooy yowmal bu bisi bu mbir mi tàngee yàlla wàccee jant bi nga xam ne woo yëkkatee sa loxo xaw koo laal yokku tàngoor wa fay leer ba nit ñi di ñaq ba ñaq wi am na ñoo xam ne xaw na leen wan na mu xat lool taxawaay ba jafe ba nit ñi dañ doon bébét sax yàlla àtte leen dugal leen safara moo leen gënal taxawaay bu métti boobu keroog bis boobu mbindeef yëpp danañ jaaxle safara dal di dagg rek jahannama ne ay wa lakk nit ña ndax bakkaar yu bëri ya ñi raglu mbir mi raglu ba nit ñi tiit daw dem ci yonent yàlla noo mu fàttaliku bakkaaram daal di xebal leen ci yonent yàlla Ibrahim moom it mu fàttaliku bakkaaram yebal leen ci yonent yàlla Moussa mu fàttaliku bakkaaram yebal leen ci yonent yàlla Isa yonent yàlla Isa yebal leen ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam لون لي في حديث طويل في حديث بو يوم يقال له بس بني وخ يونت نانكو ارفع يكتي راسك سبوب سال نيانال رك تون تاني يوخ لا واشفع رمل تشفع رك يالا رم بو نيان رك يالا مايلا بو رم يالا نانغول لا غرم ديسا كرك بني وخ يونت بي صلى الله عليه وسلم دفنا انا لها من ما مقام بو مي رم man rek maa ko xelloo su ko defee yàlla hubbil ko foofu si sant yàlla loo xam ne yàlla mosu koo hubbil nit muy sant yàlla sant goo xam ne nit mosu koo mën a sant yàlla moo tax bàyyi ne fatu du jeex ba mukk ba kera yomal xiyaamati rek yàllaa ngi may yonent bi fatu goo xam ne ni jaam mosu koo am moo tax fatu du xam fu mu yem bu leen wax ne mbir yi tëju la doon kii rek déedéet fatu day day rek keroog yonent bi dana sujjóot di ñaan yàlla yàlla na ko yëkkatil sa bopp laajal ñu jox la rammal rek ñu ñu may la ñu ñu may la ndigal ci rammu googu koo rammu ñu rammu ko wala boog kama fi tirmidi comme na xadis boo ñëwee si tirmidi wa fi riwaayatin law ci beneen riwaaya waqul waxal rek yusma danañ déglu li xawli ka ñeel sa wax ñu ne yonent bi waxal boo wax ñu déglu la loolu la ko yàlla di wax keroog keroog yi da yonentu moo ñu xettali kum neex kum naqari yonentu àll xettali noo ko mën a taaw yi da yonentu na la waaw xettali na la ci lan ci mbugalam yàlla moo xam ne yàlla rek ci mën a musal nit waaye day keroog ku jaaru si yonentu doo mucc waaw la faale xataa yonent yi yu mag yi ñëmu ñoo jege yàlla yonent bi rek ko ñemee jege ñaan bu fekkee yow nag ponkal nga moo xam ni boo amee soxla da ngay dem si yàlla direct doo jaar si yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu yomal xiyaamati ñëwee jaaral si yàlla direct Hmm. yàlla doxalewut suñ digganteeg moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam lu may wan ñu garaat bi mu amee hadis bii yonent bi jàngalul ñu ko ci àddina lu may wan ñu foor gi mu foor fa yàlla ndax mbiru yomal xiyaamati la waroon naa xaar ba yomal xiyaamati ñu xam ko waaye daf ñu ko wax fii pour ñu xam mooy kan su fekkee nag doxale sa digganteeg yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam jaar si yonent bi pour yàlla nangul la ñaan dégg nga <laughs> loolu moom di bokkal yàlla kon bokale yàlla dagal na ci ci àllaaxira moom to bokale mo musu dagal fen bu lol mo mooy xéeféer dagal na ci àllaaxira xéeféer musu dagal fen wala yardaa li ibadil kufra la fi dunya wala fi laaxira yàlla bu du gërëm mukk ab kéeféer ci ñeel jaamam wa fi riwayat buxaari bu dee ci netri bukhari wa muslim ñom bañ indi hadith bi daf na ya muhammad yàlla daf na ya muhammad irfa ra'saka yakati sa bopp waqul waxal yusma la ka ñu déglu la wasal ñaanal tus tonta danañ la jox washfa na nga rammu mindee fi ram mooy nga ñaanal leen jàmm te shafa ñu may la rammu booy booy booy rek ñu ñu ñu ñu ñu ñu rek ñu validé waxal rek ñu def joxañal ñu dog loolu la ko yàlla jox kooku mooy yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom rek moo am garaat boobu am yonent yi dañ naan yàlla mer na mer goo xam ne mosu koo mer te dootu ko merati bu mukk ñëwuñ koo ñaan yonent bi lay nit ñi dem mu jàkkaarloog yàlla faj seen xaaju waaw su ko defee <clears throat> boo xamee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga noppalu waaw doo bokk ci ñu ñàkk tegg ñi wax naa yonent bi bu génne àdduna ci lay gën a lott buy dund yonent bi yàlla wuññil na ko lépp may ko kàttan goo xam ne ni su ñaane yàlla yàlla déglu ko safinatu ba nga xamee ne dem na ci xàll ba gaalam ga débordé dugal ko ci jazira bu mu xamut mu gis fab gaynde gaynde gi ñëw pour song ko daf ne ko mbaa yàlla yonentu laa de liggéeykatu yonentu la keroog de keroog xelam demul ci kenn pour mu musal ko ci gaynde gi lu may ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga ko waxee loolu ci la ko gaynde gi commencé nag di ko <laughs> sëgg mel ni kurus di mbow maanaam di ko wan yoon safina topp ko gaynde gi ànd ak moom mel ni ku koy gunge ngir bañ leneen lor ko ci àll bi ba mu demee ba jot yoon wa nag gaynde gi daal di mbow génn mu ne mbow googu dafa mel ni mbow tàggatoo la gaynde googu keroog li tax mu rus safinatu ba loru ko tudd gi mu tudd tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonentu nekku ci barab bu waaw moo tax boo xettali koo ci barkeem rek yàlla mën na laa xettali yowmal qiyaamati nag ñëpp ci barko mu neex ñi mu naqali ñi wa ahadisu fi hada ci li kasiratun lu bëri la hadis yi ci wax ne yowmal qiyaamati ci yonent bi lañuy xettalu bëri na sahihatun lu wér la lakinnaha waaye moom tawilatun lu gudd la mashhuratun lu siiw la hadis yu gudd la yu siiw la yumkin dana jàppane arujon dellu ilayha ci hadis yooyu fil maraaji ci delluwaay almazkura yuñ tudd yi boo demee ci delluwaay rek dégg nga <clears throat> maanaam ci téere yi buxaari ak muslim ak tirmidi ak yooyu da nga fa fekk hadis yi muy hadis yu wér yu bari sax yuy wax ne ci bi moo ñuy ràmm yomal xiyamati pour yàlla door ñu at fi haadi ahadis ci la nekk na ci la xadis istixaasatun xettaliku saarixatun bu leer nañ wa tawassulun ak jottaliku saafirun bu feeñ bi rahmati ci yërmande almuhdaat gi nga xam ne kado la sayidina muhammad suñ sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam waali ak ñu ñoom wasal mosu leen mosal xadis bi <clears throat> feeñ na ne ñëpp danañ xettaliku ci yonent bi yawmal qiyaamati danañ jottaliku ci moom pour seen xaajo yegg ci yàlla <coughs> yonentu lañuy jaar mooy bunt ba <coughs> minal anbiyaa yi te jottalikoowu dafa jóge ci yonent yi ñu mag ulil azmi ñi nga xam ne ñoo di boromi dogg ci ñoom maanaam yonent yi gën a fort ci yonent yi muy yonent yàlla noo Ibrahima Moussa Isa ñu ñoo gën a fort ci yonent yi keroog danañ xebal nit ñi ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> wekkoon ne ci mbindeef dafa xaraam bu ñëwee ci Adama Adama daf leen naan loolu dafa xaraam bu ñëwee ci yonent yàlla noo noo daf leen wax loolu dagunut ñaan leen yàlla rek yàlla mën na leen dégg waaye du leen xebal ci mbindeef الذين يخم لم يتوجهوا جبلهم مباشرة دركت إلى الله جمشي على مولاهم سن كلفة جل مغنى وعلى تكبلا ني نيب نيو نرك دركت تي يالا يالا ماينو لول يومنا رواتنا بيرو يوم القيامة يالا رك سي مانا موسل نيت سفر كو سي مانا موسل نيت كودو يالا يالا رك سي مانا موسل غير بور ني موتي سي جار فهذا ادم ادم ماغني يحول من تورني almustashfiina ñee sàkkoo ramm ilaa nuuxin jëm ci nuux alayhi salaam woo moom bi dawrihi ci róolam yursiluhum mag leen xebal ilaa ibrahima jëm ci ibrahima aadama xebal na nit ñi ca nuux nuux xebal nit ñi ci ibrahima fa yabaasuhum ibrahima xebal leen ilaa muusa jëm ci muusa fa yuwajjihum muusa xebal leen ilaa isa jëm ci isa fa yushiru mu junj alayhim ci ñoom bi saydil bashar ci sangu mbindeefi su ko defee na Iisaa joxañ leen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal leen yonent bi ali yàlla nekk si yonent bi wa alayhim yàlla nekk si ñoom yonent yàpp asalaatu xiwal asalaam ak mucc wa kullu waahidin kenn ku nekk min anbiyaa ci yonent yi yaxtajiru ma ngàntulu way yatazakkaru mu ngay fàttaliku zanban bàkkaar boo xam ne iqtarafahu fàgg na ko wa yatahaddaju ma ngay dokkat kàddu ga ngi teg lox bi nafsi naan bi nafsi bi nafsi goo xam ne dafa ànd ak lox kàdd gi di dagg mënul xegg loolu mooy taxa taxadduj nafsi sama bopp ñoom yonent yëpp keroog ma xiyaamati ñu ngay tiit bay lox bu ñuy wax sax seen kàddu yooyu dog ñu naan nafsi nafsi sama bopp sama bopp rek lañ tal amma huwa waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar fon ba nga yëkkati rasoo boppam wa yaqulu may wax naan ummati sama xeet ummati sama xeet keroog yére moom yonent bi sallallahu alayhi wa moom day yëkkati boppam ci kaw naan sama xeet sama xeet wal qadiyatu histoire bi xunaa fii mooy ana al imaamu Muhammad Busayri naka imaamu Muhammad Busayri ad dalaasi rahimahullah qaala wax na mutawasilan di jottaliku fi aaxiri burdati yi ci mujj ak burdaam alfarida bi aji wéet fi madhi saydil wujud ci tagg sang ak xam gi maanaam imaam Busayri ci mujj ak burd ba dafay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yaa xalqi yow mi gën a tedd ci mbindeef yi maa lii aw ma man ka nga xam ne aluusu danaa làqu bii ci moom si waa ko kudul yow indi xululil xaadis yi ci wàcce xew-xew ba alhamimi bi aji matale mbindeef yëpp te mooy tiitaanga yowmal xiyaamati lii la bu mi gën a ci mbindeef yi keroog bu yàlla wàccee mbiram mu màgg moom nga xam ne kenn du ci mucc muy tiitaange bu mag ba ba yonent yi sax di tiit keroog yi xaw ma ci kenn ku mu wéedu kudul yow lii de lii la bu séer wax ñu ne ko xéeféer la ndax ñoom dañoo xam kenn ku ñu wéedu keroog bis boobu ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ne wéedu ci yàlla lii de la bu séer wax ñu ne ko xéeféer la wala xaadisu xew-xew ba la am baa ji matale foofu moom yowmul fasaxil akbar mooy bis ak tiitaange bu mag ba mooy yowmul qiyaamati farajaa mu yaakaar min ha ci moom dégg nga an yashfaahu mu ramm ko في ذلك اليوم تي بوب لبس مويا كارتي رم غوغو يونتي بي رم كوتي لانه نحو ما يجري ام شفيان اجر رم غيره كد يونتي بي صلى الله عليه وسلم كما يفعلكم من رفع الانبياء يونتي اول العزم بروم دوغيا نيوم نيب صح يونتي بي لي نياكار بور يالا ختري جامي فوف بوزير لي لو ني نكو هيفر انا لي فوم جيغي هيفر انا واحد سا دا فلاجو تاويل نخ لير جيم leer dëppoo ay xaddis ñu ne borom kéefër la xam nga dëgg-dëgg ñi moom dañoo mel ne ñoom moom diine lislaam ku leen neex ñu dugal ci ku leen neex neexul rek ñu génne ko ci laakin waaye nag laa yafqahuuna dégguñ kafaru xéeverloo nañ ko bi daawaa ci xoote ne ana al istixaasa <coughs> xettaliku bi xëri ci lu yàlla shirkun bokkaare la suraaxun bu leer nañ <coughs> ñu xétlé ko ci rur yalla bokal القران فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه كيغا خامل ني سي نون موسى لا بوك موغي خيتلو سي موسى سي كيغا خامل سي نون موسى لا بوك نيت كايغا خيتلو كو سي لول دار نيكو سي يونتي مي مان نارام ولا مون رام لا يور لاج ني ان التوصل نكو جوتلو بالميت سي نيو كفر ود لا بواح ناني ñu ne jottali ko ci koo xam ne dafa génn àdduna ba pare ngay jottali ko ci moom loolu xeefeer la ñoom ñu ne maanaam la moo texeel diggante jottali ko ci kuy dund ak ku su fekkee yàlla rek kay def te ci barke waa ji lay defee maanaam mbaax ji waa ji baax fonk gi nga ko fonk tax na boo boo ne yàlla may ma loolu moom wax naa wax wax naa ci lu bari ci ba may firi burtu ba yàlla dana maye ngir diw nga ne yàlla may ma ngir diw moom loolu du ci nekk <coughs> wóor nañu yàlla dana maye ngir diw yow nga ne yàlla may ma ngir diw lu ci nekk xanaa jotali ko ci ku dee kooku moom dund na jaamu na yàlla ba yàlla gërëm ko mu dem barzax barzax dund la fa nekkee ndax nekkul ne foofu dafa dee woy shahid sax yàlla nee na bu leen wax ne dañoo dee ñoom ñu ne yonent bi mayit la di sukkandiku innaka mayitun xataa way shahid yi dee nañ waaye yàlla si bon dafa ne bu leen leen wax ne dañoo dee que ñi ngay dund fa yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi romb na Moussa ci xabro muy julli yonent yi dañuy dundu seen bàmmeel kooku dafa dee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax na ak yonent yi far ca rañaan ga wax ak Moussa wax ak Idrissa wax ak ñoom ñëpp te lépp loo xam ne dagan na pour mu nekk mojisa ñeel yonent rek mën naa nekk karaama ñeel wali bal sax loo weddil wali rek da xamut ndax yàlla dafa wax ne am na ci jaam yoo xam ni lu luñ bëgg yàlla def ko ñoom suñ bëggee dégg janoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na leen may comme nu mayee yonent bi mu janoog yonent yi di wax ak ñoom janoog yonent yàlla aadama hmm? moo tax xamuñ maqaama yonent yi moo tax ñoom xamuñ lu may ne dee medd la maanaam xamul dara mënu dara daal loolu te teggin yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye dama ne xetliku ci koo xam ne dundagut juddoogut far خلاهم وجن جراو شكو خنا جامون يلا بقينا عندنا تعال خوان نيتلي إن تستفتحوا منام وكانوا من قبل يستفتحون هر الذين كفروا يهودي بقول لنا خير دين لنا نيان يلا تبر كي يرنتي بس الله يسلم يلا ديمبل لين تيرنتي بنيو بقول يلا نيان يلا تبر كي يرنتي بنيو يوني مجاك جمانو نديمبل لين يوشي غير بي يلا دونو ما يندب با يرنتي بنيو يلا دين فاتلي خيول جوك نرن بنجك كون دعين دون قتل لكو شيرنتي بس di ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa la ngeen doon ñaan la ngeen doon ñaan ci barke mu ngi nii dikkal ne leen ngay weddi ko falammaa jaa'ahum maa lañ xam ba mu leen dikkalee ñu weddi ko koo xam ne juddoogul sax ñu ngi ñaan ci moom ba mu juddoo ñi ngi ñaan ci moom sa safinatoo ngi dem fële barab boo xam ne yonentu nekku fa gisul yonent bi ay gaynde rek la fa gis mu ne naa mbaa yàlla yonentu laa lu tax waxut jaamu yàlla la kanaan yàlla ay dimbal nit ñi yonent bi mën naa dimbal ni ñi si ñoom seen jort gu bon ko ay keroog safinatu bu muccee ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la mucce ci la mucce waaw kon su ko defee euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen ko jàppee comme nit ñi naan ay deen ak nangam nangam yonent yi ñu ngi dund seen bàmmeel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa su fekkee jaa yàlla mën naa def dara ngir barkeb diw yonent bi saa su nekk yàllaa ngi def dara ngir barkeem ndax moom rahmatul muhdaat la yërmaande la goo xam ne guñ joxe kado la kado gudul dàkk ba bis penc yërmaande gi yàlla sotti ci jaam yi te muy barke bi yonent bi du dagg bay laa yomi diine xatta sa alquran képp ku nekk rek dafa mel ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay jàngal alquran waaw yàlla daf ko wax nga waar ni ñëw man balaxa ak képp koo xam ne alxuraan xegg na ci moom rek mu ngi mel ne yonentu ko waaral bu mbiram du dagg mbiram yonentu ko wax ne dagg la rek ñàkkee na ko teggi ñoom nag loolu lañuy wax yonent bi jugee na fi jot li ko ci ku fi jugee ko wedd yàlla xeefeer la ak ñu xamante anna bi sallallahu alayhi wasallam na al muslimina jullit ñi an yatruhu ñu xaawaabal ci moom xaawaabal mooy tagg ko tagg bu ëpp xam loo mën a taggee yonent bi lu ëpp koo xam ne mënoo jot lu baaxam lépp noo xëppalee ci moom xiina qaala ba mu waxee moom yonentum laa tuturu laa tuturu nii bu leen xabaabal ci man kama atarat comme nu mu xabaabalee an nasara nasaraani ala isa bnu mariama ci isa bnu mariama yonentu waxam ji leerul li nasaraan yi doon wax ci insa bu leen ko wax ci man nasaraan lan lañu wax ci insa yàlla la wala doomu yàlla la loolu loolu benn jullit daf ko wax loolu mooy xabaabal waaye wax lu baax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënoo wax lu baax ba ba jot ko waqad naaqasnaahum wax nañu ak ñoom mantiqahum seen tudd gi al muawaj bi aji jàng seen dégg-dégg bu bon bi wax nañ ci ak ñoom wa bayan naa ñu leeral zayfahu ak mbalitam mbalitam wala li seen dégg-dégg bi mbalit la li anna hada al xadis ndax xadis bi sarihun lu leer la fi na fi talihi ci dàq def ko yàlla wa nubuwat ak yonantu goo xam ne ilaahi dafa ko yàlla yonantu la waaye yàlla la ولا غنا يالا ولا دوم يالا دوغيت لا سي يالا يوي لا ني لوي لا حديث بي داق بو كو خا يونت بي لول كين غوخوت كو ولا سنيكو هناك فو مسلم جليل يسول دا ييغ اليه ما نيوم نيار مام داف كو يالا ولا يونت بو خا مني جيم يالا لا كين هيغوت في فاق النبي نا سي حق سي يونت محمد صلى الله عليه وسلم لا نصراني وقت ينسى دي امو جليل بو كو وخ يونت بي صلى الله عليه وسلم واكبر من ذلك اللي غنا ماغ لول صاح ما فإن سلطان المداحين نكا بور تاغ كاديا تموي بوسيرو الذين كي خان يكفرون نيم كاي ويدلو يقول ما يوا في البرد تي برد بذاتها تي جيمم جيمي برد بيم وخه بيت بي نيكو هيفيرلو ميم برد بوبو لا بوسير واخ بصراحه تي لو لير تامتين بو مات ندع بايل مدعته لهوت نكو ان سرا نصراني في النبي مسيرنتو la nasaraan yi wax seen yonent yow bul ko wax si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi loolu la Busayr wax ngeen bëgg koo jiñ lool wax kum atteel bi maa siite ci loolu la neex madhan ci tagg fii ci moom wax takk mii te nga xereñe ko nag waaye jikko ju rafet ju ne askane ko bi sallallahu ndax mooy ci sànn lii la Busayr wax kon moom jikko la askane yonent bi ju baax te yàlla ko njëkk tagge waaye naka la ala xuluqin azim waaye askane wut yàlla دوم يالله كم نكون نصراني وخير والذي لنا خم نريد أن نبقى أن نعرفه نقم كهوم ماذا عن البصيري لن ما ور بصيري رحمه الله إذا طلب بصاكو من سيدنا محمد سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيد البصير أكسنغ من نفف ما سرنا خمني سيطلبه دنكو ساكو من كمام أولو العظمي borom dog yi min anbiya ci yonent yi yowmal xawli bisub ci tàng al bi aji màgg bayt bi ñu bëgg a buuse xéefarloo um, um, buuseeru mooy yonent yi war laa yaakaar wéeru ci yow keroog bisub ci gu màgg ba loolu yonent yu màgg yi sax dañ koy def lan moo ci nekk ban kéefar moo ci nekk wal haadi al ahadis ndax xadis yi saxiatun lu wér la indum fa ñoom xadis yi ñu léegi ndax wér na yaakaar bu nekk al jawaabu faxal yu kafiroon ndax dañuy weddi weddiloo al anbiya yonent yi fayak fayak furoona su boobaa ñoom ñu nekk xéeféer buñ ne yonent yi lañ rek ñoom ñoo xéeféer loolu ku ko wax xéeféer am maza ansa an yaqulu wala lan la ñuy wax boo ne xaddis wér na ba pare ne li bu séeru wax kéeféer la te loolu la yonent def lan nga ci mën a tegati wayen kaana bu nekk aljawaabu tontu bi laa déedéet xaddis yi wérut te loolu moom ñëmuñ koo wax الحديث يجي أمون يجي ذرة دقوا خيني روا الحديث يجي يوم يقول أطلع فنحن نتعودنا باخونا من يوم تضعيف الأحاديث لطلع الحديث التي يقمن لا تصعفهم دولين دمبلة عند المناظرة تي جونت أنا من يوم بني وقتان بولين أنزل الحديث بولين أنا زورك فين ما نجار بلوت لوك درين كجيم لول مو وهابي لول شن جيكول فين ما نجار بن حديث بي ويرو رك danañ ko def waaye xadis yi moom mënuñ ci dara su ko defee <clears throat> lay wax ji daal mooy yomal xiyaamati ñëpp danañ jaar ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi pour yonent bi dox seen yàlla pour ñu am jàmm mucc ci mbugalam yàlla mi ak meram xataa yonent yu mag yi su ko defee loolu wane na ne lii bu séeri wax ne moom keroog bis boobu yonent rek la yaakaar dëgg la loolu jéeguwul sax kéeféer loolu mooy dëgg-dëgg gëm yàlla loolu dëgg la su defee affaire yu tawassul ak yooyu incha allah rabbi moom danañ ko defal buntu boppam waaye fii daal li ñuy taxoon a jóg mooy kéeféerloo gi ñu bëgg a kéeféerloo bu seri ñëwale ne teguñ ko fenn lu may ci parparlu ak wax lu leen neex rek waaw waaye Buseyri li mu wax dara nekkul ci incha allah dars bu si topp danañ indi ab saxaaba boo xam ne moom it mu ngi xetlu ko ci yonent bi di ñaan yonent bi ràmm ko ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent wax ko dara kon loolu du kéeféer in uridu lil islam ma stata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh